lu yoof ñu taxaw suñu papa Ipo Ngari ñoxobaay baay macha allah ku ko gis gis Ipo ci wet gi ñoom ñaar junni la ak cinq mille rek euh, tey papa ñu ñëw fii ci levée du corps Gaston Mbengue bëggoon nañoo xam kan mooy Gaston Mbengue ak yéen relation ngeen amoon. jërëjëf wax rek ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tey làmb na làmb ñàkk na icône boo xam ne yaakaar naa ne dootu ko gaaw a am. 30 ans yi mu def ci làmb maa ànd ak yor micro central ba mu xëy jox lenge yi makan nek nag nit ku baax nit ku laabir nit ku dëggu nit koo xam ne itam xolam dara newu ci mën naa mer léegi waaye juróomi minute lépp jeex ci moom bëggul ku toroxal nitam bëggul ku doye nitam te nitam problème bu mu am day taal otom topp ko ba mu jeex Eh, lamb dal ñak na tay ko xamne euh yakar na ne ca góor makari Makhari Thiam vieux djibi job, gor gui Adrien Fall euh Alaaji Bassirou Diagne maram Diop ñooñu ñep ay promoteur yu fi jaaroon lañu waye tay fi Gaston andi fall andi làmb ñooñu andi wuñ fa lamb tay Gaston ginaaw yalla ak yent bi bu million yi feñe ci lamb mom la parce que petit mbaye jëk fay ay 25 euh, euh, millions ci lamb fay ko tay seen bombardier waye garçon dem na ba nga xamné 100 euh, millions fay na ko mbeur kon euh tay lamb ñak na ko xamné ku doy war la ci bir lamb ñi ñaan yalla rek fi mu teud yalla nako malaika malaykam mandé téro té mu dékké ci aljana sayyidina Muhammad sallallahu alayhi Wasallam, tay dal lamb ñak na ko xamné vraiment ikon lamb la motax euh waxna ko makkan barki dem ne ko donu sa bay yomna sa bay bay ay étage ak khalis nga donn ko yomna mais don ko mo jafe doon sa bay don sa baay ko gën fa son tegon tankam nak am ak ñepp jam bo xolé armel ni mu feese nga xol ne ma dama yëpp bay nañ seen liggéey bay seen soxla bay seen rendez-vous di taxaw di xaar pour ñu jébbal ko suñu borom nga xam ne baax rek am solo te ñeen ñeen fukki nit bu ñu taxawee ci sa julli euh, ñu di la jullee ci biir ñeen fukki nit yooyu am na ko ci am na ko ci yàlla rus mbooloo mii nag yàlla yàlla am ku mu ci rus ba dekkal ko ci àjjanay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey daal làmb ñàkk na koo xam ne euh, euh, mooy làmb mooy làmb man day seq naak moom loo xam ne dem na ba eh, jël jabar may ma waaw boole ko euh, xëy woo ma woo woo sama jabar jooju génne un million jox kon yaakaar naa ne kooku euh, tey ñàkk naa koo xam ne ah gëmuma ne dinaa ko amaat ci làmb waaye yal na ko malaykam yërmande teeru may wax itam yéen réseaux sociaux yi am na lu bari lu ngeen liggéey ci làmb làmb ñetti ligne lañ ci daan bind ci Paris dakaar wala Dakar Matin benn rajo moo daan wax ci lamb muy RTS tey bu ñu demee ba nga xam ne plus de deux cent et quelques réseaux sociaux kenn namatul lamb parce que fu waay toog rek boo génnee sa portable bu la neexee seetaan lamb ma di leen sant di leen ñaanal yàlla yéen itam di leen ko jàll di ko jàll promoteurs yi di ko jàll mbër yi di ko jàll ménager yi di ko jàll amateurs yi di ko jàll arbitres yi ak CNG ak ñëpp garson daal yal na ko malaykam yërmande teeru Thank you. suñu papa Gaston Mbengue mi nga xamante ni moo génn àdduna ñu nekk fii ci Yoff yan kàddu témoignage nga ñu ci mën a def waa di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di wax ni li ma wax léegi rek béréb bii dafa am lu ci suñu borom di jàngale ñaata boroomi daraja ñaata boroomi étage ñaata personnalité ñoo fi tëdd ban doomu aadama moo la mën a wax lu ñu nekk ci biir Gaston mii tey génn àdduna tey lay njëkk a fanaan guddeem gu Nyun ci biir bàmmeel ñun ñi fi taxaw ñëpp kenn mënu laa wax lu kon dafa am lu suñ borom di wone fii muy àdduna bi la fi yàlla indee dafa am charte yu la suñ borom teg parce que bam ne kul nafsin saay xatal mawt da caa teg kullu man alayha faan wa yabqa wajhu rabbika wal ikram. teg ca borom faaxaalu li maa yurit lii mooy borom faaxaalu li maa yurit yàlla neen lijjantiwu ma lu neex doomu aadama yi lu ma soob man yàlla moom lay def. kan moo jël Gaston kan moo ko mën a yëkkati fi mu tëdd kon li ñu sart yi ñu dëggaate suñ digganteek suñ borom ak suñ digganteeg suñuy morom lu tax mënuñu koo matale ndax mbooloo mi mbaa yëg nga ni laa dañu fay jóge suñ borom joxañ na ki fi war a jóge mën na nekk tey mën na nekk suba mën na nekk man mën na nekk wa kon ginnaw ki nga xamanteni mo am sañ-sañ boobu mo am pouvoir boobu lutax tax ñun mënunoo delu ci yalla yalla xoolu borom personnalité xoolu borom alal xoolu borom daraja da lay rey calculé wul lolu limu xol moy xol bi ak limu sartonté ak yaw fi bo fi duggé da nga nan kèn dundatul nga genn ci biti gis ni gasof fi ne lépp lu ñuy def ni mi ngi gis mais du wax du jog xanaa kon yàlla mooy ponkal mu mag mi nañ ko delloo cër bi mu jox te bañ ten jaamu ko te bañ ko jaamu ci ay caaxaan bañ dugg ci ay détails lii fi dajale ñëpp Gaston moo ko liggéey ba ko liggéeyul woon du ko am nañuy tiire leçon bu nit ñi génnee àdduna ñuy xool nuñ koy dencee xool suuf suñ koy jal lim gën a na bañ mooy taq dañ lay dugal ci biir suuf si dóor la ay pel dem jaa ani munkar ak nakir xam nga kan mooy munkar ak nakir kii daa ñaaw ba kenn xamu ko kii ba ñaaw kenn xamul kenn te ala kulli hal question yi dox sa diggante sa borom dañ la ko questionné kon alaykum wa rahmatullahi taala wa bergas jambar fit jambar fit te ñepp sédé nañ ku deggula te dëggu mooy li suñ borom gën bëgg ci doomu aadama loolu laa mën a wax ci moom yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla yërëm yal na dee di nooflaayam barke Seydina Mohamed jërëjëf. Mohamed di di delloo si di rafetlu sa teewaay. Mm-hmm. waaw. fii ci génn àdduna ki nga xamante ne mooy yan kàddu témoignage nga ñu ci mën a def. waaw tey Gaston boo ko xoolee tey di suñu papa ku uh, ku am ne ku am ku am taalibe am de tey bu yàlla defee ñëw dogalam am de ñëpp dañuy delluwaat santaat yàlla ndax doomu aadama indiwu fi boppam am de buy dellu du tàggu kenn. am déet yàlla bu defee bu la fi indee buy dellu tàggu ku yàlla bind dalay jeg yóbbu la neex tey bu mel noonu tey suñu papa amoon comportement ci nit am dem den def nekk référence làmb am déet nit ñu bëri tey bëggoon ko tey ci wopp tàggat promoteur yu bëri tey yàlla garçon moo leen tàggoon ci li leen tette ba fii tey tey bu yàlla ñëw def ne tey xam ne ma làmb monument tey ñàkk nañu barke sëñ Tuubaa xale yu ndaw yi ku ci am cinq koo laaj ne la Gaston xam na ko nañu yaakaar ni bis bii nag ah ñëpp a koy waajal bis bii na ko ñëpp waajal barke àllu ndax leçon la doomu aadama dañ ko war a jànge barke alxuraan loo indiwul sa bopp loo fi indiwul tey boo demee ci bi doo ko fa fekk waaw Gaston tey ku amoon comportement di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana ci darajey Seydina Muhammad ndax lii tey boo dee xool tey ñëpp tey dinañ ko jàll di ko jaale tey mm, ancien promoteur yi tey di ko la jaale tey ku mel ni ñoom Aziz Ndiaye ñoom Gaston tey di ko président Jambar Mansour suñu papa père ba ñëpp ñu ngi leen koy jaale waa seen mbër yu mag ñëpp ñu ne ndax lii tey ñëpp a ko métitlu mais yàlla lu mu def rek dalay mujj neex ndax borom bi moo moom nit ñi buy ta buy def du tàggoo lu ko neex lay def kon yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana yàlla na ko yàlla nit ñi jëlaat leçon delluwaat ci lii nañu xam ne dee doy bette te désordre lay ñëwee bu doon ordre ñëppay dem àjjana ñëpp nañ ko waajal bis bii na ko ñëpp waaj day bette bu doon du bette kay ñëpp mën nañu dem àjjana yow buy ñëw du tàggoo désordre lay ñëwee mm-hmm. kon nañu defaraat suñu toogaay defaraat suñu comportement defaraat suñu dignité am de nit ñi bëggante delluwaat ci yàlla xam ni jaamu yàlla mooy lépp mm-hmm. waaw nit ki loo fi loo loo fi bayul boo demee fee doo ko fa fekk mm-hmm. amul kenn ku la ko mën a jëlal loolu aw ci tànk siraatal mustaqim jërë ngeen jëf yàlla na lépp barke yàlla na lépp barke yàlla xare ko àjjana ci tawfeexu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko waroon ci àdduna def na kon liñ koy ñaanal rek mooy fa mu jëm ah suñu boroom teeru ko ci teeru bu gën a rafet waaw te xam naa ne jàmbaar la àdduna moom la ko ci waroon def na ko waaye yàlla moom ay mbiram euh, nii lay demee mm-hmm. waaw di sant bu baax di wax benn anecdote bu ndaw euh, Gaston doon na doomu aadama boo xamante ne Alaaji Mansour Mbaye laa ciy jël comme seede mhm. am na anecdote ñu bare dañ doon séq maag Gaston te xamuñu woon lan lañuy ñuy séq man ak moom dañu yaakaaroon anonymité la mhm. woo ma téléphone may tëgg euh, Bombardier ak Yékini mu ne ma nañ daje sama boutique ville mhm. li ngay sol man maa la ko bëgg a jox ma ñëw ba ville foofu jour boobu moo tax ma ne la âge Mansour Mbaye moo fa nekkoon ñoom ñaar kase man moom ak yàlla costume bi ma sol jour boobu muy rayee boobu Gaston moo ma ko jox kon xam nga bu doon animosité am na du ma jox yére ma sol ko kon loolu anecdote bu ma doon wax la di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne àdduna nii rek la àdduna moom nii rek la euh, mooy li may wax rek nañ delloo ñun ñëpp suñu xel ci suñu borom ndax sëñ Touba ba muy dem géej di sànni der nit ñi géej la ñu gis mhm. waaye sëñ Touba yàlla la gis mhm. moo tax ba mu lalee der ba mu taxaw mhm. kon nañ delloo suñu bopp ci yàlla xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay eh, di ñaanal ñëpp jàmm taw feex sutura xeex boo amee kàddu yooyu dénk njabootu Gaston waaye boo amee kàddu yooyu dénk ki nga xam si ni moom la jox lenge yi muy makkan boo amee kàddu yooyu dénk njaboot yan kàddu la non kàddu yi moom lenn rek la euh, seen baay am na empreinte mu marqué Sénégal loolu avantage bu mag la ci ñoom ndax tey boo ne man doomu Gaston Mbengue fii Sénégal am naa yaakaar na nit ñi dina am cër bu ñu la jox perpétuer nag liggéey bi nga xamante ne moom la fi doon def ndax loolu lu am solo la euh, lu am solo la te wax dëgg yàlla Makane gis naa ne jàmbaar la ndax mu ngi béy waaram ñun ñëpp nañ ko jàppale lii rek encore une fois day wane ne Euh, ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk bàyyi la ma ko waxoon ci déju Pape asis Ndiaye rek mm. ne ko bu la dara jaral xëccoo bu la mm. dara jaral dara mm. ndax la ma la wax sànq rek lépp loo gis boo ci gisee yàlla doo sonn mm-hmm. ndax tey boo jaakaarloog gaynde gis gaynde yàlla bàyyi laa gaynde yi waaye boo jaakaarloog suñu borom ne gaynde yii yàlla la boo ko fa tegee rek mm-hmm. da ngay gis ne yàlla la yàlla mooy ñëwal boppam mm-hmm. daal la aar daal di la suturaal mais boo gisee gaynde nag mu bàyyi laa ak gaynde gaynde yi defanteeg yow waaye gis fa yàlla rek incha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf Père Gaston man dama dugg ci média yàlla boole ñu wax dëgg yàlla yonent bi te boobu mën a xam ne que maa gënoon a ndaw ci reporter yi bu ma juumul c'est en 2014 boobu maa ngi Sénégal mais yàlla mayoon na euh, na ma benn estime moom daf ma buggoon quoi en comme comme booyam quoi daf mu bëggoon booy yi nekk man ci presse xam nañu maanaam bu jàppee dara bu ma ñëwee sax xët-xët ji day bëri mais dina dinaa wax ak moom ba mu bàyyi yàlla ma na ma loolu ci moom. ñu daan jokkoo téléphone di wax bu mësaan am yenn nii sax mu naqari ko wala mu sentir ni que dañ ko nar a ay kuuba na ma woo fiis gis nga nangam ak nanga man nangam ma ne quoi dara nañ ci def nangam nangam wala nañ ko waxtaanee donc tey fi góor gi Ameth Diène tegoon tànkam. Alaaji Bassirou Diagne Marème Diagne tegoon fa tànkam Gaston bi mu ñëwee il a révolutionné la lutte tey mën nañu wax ne que tey mooy troisième personnalité bi ñëw ci làmb yóbbu làmb fi mu ko yóbbu boo jëlee ces vingt dernières années ou ces vingt cinq vingt cinq ans yu mujj li Gaston Mbengue def ci làmb amul benn promoteur bu ko ci def les plus grands javis moom moo ko tëj cachet yi gën a rëy ci làmb moom moo fay tey ba tey jii tey fruit fruit fruit làmb moom ba tey ñoom ñoo fi nekk tey ñoom ñoo téye làmb te ñooñu tey ci Gaston lañ jaar nee naa fierté la tey nga romb tey ku mel ni Balla Gaye def tabax immeuble mu wóor da nga contribuer ci réussitam fierté la nga romb mel ni Modou tey tabax benn immeuble dugal fa ak ay mbokk moo da nga contribuer génération bi Gaston defar ci làmb ñoo bari te ba tey ñoom ñoo des ci làmb mais xam na ni mag la benn jour dañuy waxtaan ma ne ko per cachet yu bëri yi moom loo ci xalaat mu ne ma duma ko def ma ne ko tax mu ne ma mes enfants n'ont pas demandé à venir au monde man maa leen fi indi du ma jël li ma leen war a bàyyil suba di ko jox ay mbër bu subaa samay doom du ci fekk dara donc il tenait tellement à ses enfants à sa famille ba li làmb di nekk nekk bëgg-bëggam sóoroon na ni que tey bés bi dina ñëw wax dëgg yàlla sóoroon na ko da nga wax ak moom mooy la jàppaleen makan stade da nga ko fekk ko père naa mën a demal ci makan mooy seen morom ba dama koy tooñ ñaan ko ñun makkan sax la ñu gën a mën defal ka yow ndax yow da ngaa bëri soir mu ne waaye yéen a xam de makkan a ngoog yéen yéen a ngoog yow moom saytaane nga chaque jour dañ daan tooñante donc euh, làmb ñàkk na benn pilier mais aussi àdduna nii la nii lay demee bu pencam yàlla dañuy suulante ba keroog yàlla diwal bëft bi lu jóge ci suuf nag bu delloo ci suuf war na donc dañu koy ñaanal euh, yaakaar gi ma amoon ci Cheikhul Khadim yàlla bu mu tas te gëm nañu incha allah du tas makat mii mu fi bàyyi ak i rakkam yàlla nañoo ànd àndub say ndax loolu rek mooy féerti wuy jur mooy nga génn àdduna fekk fi fekk maanaam sax njaboot nekk benn loolu mooy fierté waaw. génn ci lan la la la man démb esar la ma fekk. Euh, journée Ibrahima Diop maa ngi lay ziar journée bi kii tëggoon démb jàmbaar euh, production foofu ñun ñëpp fa lu njëgee nouvelle bu ñun du làmb waaye nag xandoor bu dammee ci waar wàcc na <laughs> jaajëf. may Alain Jigal di directeur rajo Modou international ba nekk New York Gaston yàgg nañ di kolabore doon koo xamante ne dafa li mu nekkoon daf ko daf ko daf ko bëgg ba mun nañ ne da doon daw ci deretam donc bu ñuy def témoignage tey jii dama naan àddina bépp a ñàkk waaye booy xool booy xool buñ ne làmb bu ñu jógee ci làmb duñ ci teg lu du presse ndax communication mu la daan def partout lépp lu mu daan organiser ça a été toujours dans le monde de la presse moo tax ñun presse ñàkk nañ lu bëri ci communication ci jàppale ci siiwal événement loolu donc ñun ñi nga xam ne c'est nous de la presse ñu ngi koy mettitlu ñu ngi waaye nag du ñu def lu sant yàlla ndax ku gis lii tey hommage bii ku ne bëgg na ko yal nañu yàlla taar si barkeem na yàlla oyofal suuf ci kawam yal na yàlla yërëm ko jërë jëf jërëjëf Thank sëñ Mor ku ko xam xam ko ci lamb tay gennu aduna Gaston Mbengue ñu fekk la fi ci armée yan kaddu nga mën deggal ci wa ba dina ñaan laay lay rajo won di ñaan la suñu papa Gaston yalla xare ko añee fi daw bakkan bu ñoom dund dina ñam de kulli nafsi sayatul mati kullu baabu na fi daaxlu dee moom la ku ne yaa si jàll sa bop te ni la ko nit ku bax la képp ku nek ci lamb dërëm bo la ci lamb war ko sa dégg Gaston Mbengue ndax ku yokul ya wañ te gosso bu ñu ñëwee ak léegi lamb yokku na lamb innové na mu tax tey bu mu génnee àdduna ñepp sant nañ ko àdduna bi yëpp nga fi tay journaliste fi serigne yang fi mbër yaa fi supporter yaa fi amateur yaa fi lool nak kon amna na lu ni di n'importe qui si réew mi yala, koy ñaan yalla yalla nako ciap cat bañ a jiitu si bàmmeeram yàlla na ko yàlla xare àdduna yàlla na dé teru, faayam yàlla na ko yaakaaram muy sayyidna mohammed sallallahu alayhi Wasallam. ñu ngi koy jàll ñëpp du ko jàll waa Sénégal ñëpp di ko jàll ak lamb yëpp. Mhm. non non miintu dañuy gisante nii rek mais doom laa miinte muy makan loolu war a tey suñu teewaay fii. Mhm. jërëjëf Baye jërëjëf. waaw euh, salaamaaleykum euh, dañuy jaale Sénégal ndax euh, makan beng suñ koy jaal Sénégal gépp lañ koy jaay waaw ndax tey. yàlla boole nañu man ak moom ay relation relation yi ñu am nag mooy euh, dama doon def journée Ismaïla Madior Fall ministre mu recommandé ma ak moom boole ñu jox ko sama numéro mu woo ma ñu waxtaan waxtaan bu rafet macha allah mu jël Makan boole ko ak man jël sama numéro ak numéro Makan boole ñu ñu ànd ñu liggéey ci liggéey boobu liggéey bu rafet Makan itam jàpp kóllëre googu ñu ànde ko di ko doxe ba tey jii nii bayu ci dara waaw Makan itam def lu rafet def lu rafet jël bes bu mag bu reuy tudde ko Serigne Modou nya di way juram di xaritu way juram euh tay ñu jóge ci lolu tiis bi dal ci koom kon tay dañuy massowu tay ñu ngi taxaw ak ki nga xamante moy Sa kadior génnub àdduna père Gaston Mbengue ñu la koy jaale di ko jaale képp koo xamante ne ci njabootu làmb la bokk ana yéen kàddu témoignage nga ñu mën a joxal ci père Gaston. waaw ñu wax alhamdulilah rek di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un suñu papa Gaston ñu ngi koy jaale àdduna bi yëpp tey waxuma moonu làmb mais Sénégal moo ñàkk ñàkk nañ lu doy waar sax billaay mais ñu ngi koy ñaanal yàlla bu ko cat jiitu si bàmmeelam parce que li daje fii tey rek wax dëgg yàlla dal na xel mais ñu ngi koy ñaanal fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee ci barke yonent bi miinante woon nga ak waaw miinante woon nañ mais pas bariwuñ loolu noonu gisee nag mais dañ doon déggante de temps en xam nga te te tey man su ma nit ñi xamee yàlla ak moom la. Mm. parce que kalaaf bi mu tëggoon ñaari yoon man ci la ma nit ñi xam quoi mm. waaw. génn àdduna ci nan nga ko yëgee ak fu mu la waaw bett na ma nag parce que tey dama waroon bougé sax mais sama boy bi njambaan moom woo dem ne ma sa paa bi génn àdduna ma ne ko la mu ne Père Gaston non man nga ma ne waa ah, bilaay ci laa mujjee renvoyé sax sama voyage mu waroon dem tey teewe fii ndax lii moom mooy farata quoi mais li may wax rek yàlla mooy wane boppam rek tey booy xool ñii ñii ëpp rendement ci àdduna bi la yàlla ni teg li muy teg ñii feebar yi ñii génn àdduna jombul kenn parce que nit rek lay dal nit ñi nag ñoo war a yeew di bàyyi xel ci yu mel nii parce que tey li li dal Vergasson ku nekk mu ngi sa kanam kuy jooy rek mun nga jooy sa bopp kenn xamul kañ la kenn xamul naka la ñi nga xamante ne dañoo bokk ci njabootu làmb des fois xiiroo yeeg ngaa yooyu donte du mën a ñàkk parce que ku nekk day défendre intérêt mais waxante yu ñaaw yu mel nii est-ce que jar na ñu di ko bàyyi xel ba bu amee ku ci nekk mën a siggi sa moroom xool. Eh, waaw mooy li ma wax léegi rek mooy que tey nit ñi ci war a jàngaat lii yàlla moo ko def pour wane boppam rek waaw parce que tey nekk fii di xëccoo di ñëpp fii la ñu mujjee moo tax lu ñu mën a def ba mu rafet rek di fi bàyyi way yu rafet seede yu rafet tamit. am na solo nañ ci bàyyi xel li jombul kenn nañ ci bàyyi xel mbir làmb nag ñàkk na loo xamante ne après dina ko yëg parce que Gaston tawat bi mu tëddoon tawat rek feeñoon na si làmb géej bi mu gëñoon ci làmb feeñoon na si làmb mais dina ko gën a jooy nag làmb dina jooy Père Gaston bu baax tey mbëriñ fii joow yi am yi fi am tey teraanga yu bëri tey yàlla Père Gaston ci moom la ko jaarale mais làmb dina ko yëg bu baax quoi mais yàlla ko yàlla jéggal te jéggal ko ay baakaaram fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee yàlla bu ko jiitu si bàmmeelam vraiment lu daje fi yëpp tey ndal na xel quoi. merci Baye Djili yow moom sama waay nga dama lay bégg bu baax macha allah dana la yàlla yokk ba nga yëkkoo am leen jàmm bu baax macha allah jaajëf. jërëjëf sa Alboury ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu bu baax ñu nekk fii ci armée lu Yoff génnub àdduna suñu papa as Gaston Mbengue yan témoignage nga ñu ci mën a def. waaw dañ naan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun rek te di gëm ne. Euh, bépp bakkan bu ñoom dund rek dina ñoom de euh, suñu papa Gaston di ko ñaanal yàlla yàlla xare ko aljana di di ko ñaanal tamit ñi fi bàyyi muy njabootam yàlla teg leen loxo bu baax a baax a baax di wax ni euh, li yàlla namm ci jaam rek mooy yàlla koy ñaanal yàlla yàlla xare ko a baax a baax teg loxo ci njabootam gi fi bàyyi waaw no pa tellement nag mais gasoo moom euh, képp ku nek ci làmb rek sa papa la. Mhm. voilà ndax euh, li fi def euh, na champion yu mam moom moo leen créé. Mhm. voilà kon nag képp kuy dund làmb rek wala ngay lekk ñàkku làmb rek war nga ko mën a taxaw. Mhm. ñaanal ko yàlla. yàlla xare ko yaakaar naa journée bi nga mujjee bëre moom moo makan makan nekk ci bopp makan mooy gaso gaso mooy makan voilà voilà sama dernière journée moom moo ko tëgg macha allah mu nekk nit ku baax. makan doon te te maanaam euh, pour man nag lépp Gaston la. Mhm. voilà. Euh, ci ci ci tëdd ci tëdd feebaram bi amoo sens gisante moom benn non gisante wuñu ndax lu ci ëpp mu ngi woon euh, Europe di faju mhm. voilà mhm. mais nag mosu ñoo def interview te ñaanaluñ ko yàlla yàlla may ko wér. voilà mais nag comme que nii la ko yàlla dogalee dañ koy ñaanal rek. fi jëm. gënal ko lool mu jóge voilà génnum àdduna Gaston Mbengue ci nan ko yëgee ak fu la fekkoon. waaw démb presque mu ngi woon gars yi ñu ngi woon ci làmb ja. voilà foofu la ko presque ahlu làmb yëpp yëgee. voilà. ñu ngi koy jaale bu di ko jaal ñëpp di ko jaal suñu bopp di ko jaale ahlu làmb yëpp di ko jaale peuple sénégalais bi yëpp. wax dëgg yàlla di ko ñaanal yàlla rek yàlla xare ko aljana bu baax a baax a baax a baax yàlla bu ko cet daal jiitu ci bàmmeelam jërëjëf. ñu ngi fii tey ba tey ci entraînement ki nga xamante ne mooy suñu papa Gaston Mbengue suñu papa ji ñu toogal xam naa ni mun ngeen ko bañ a xàmmee moom mooy papa Pullo di papa ci El Hadj Ousseynou Diouf international boobu papa ñu ngi lay nuyu bu baax di la jaale ki nga xamante ne mooy suñu papa Gaston Mbengue yan témoignage nga ñu mën a defal. maa ngi lay fay sol nag sama xarit la bu baax la ñoo bokk suñu enfance à ñoo defandoo suñu enfance ensemble c'est normal bu lii il faut dama war ñëw ak lu ma sori sori dama war a ñëw c'est ça. génn ci lan la la fekk ak noo ko yëgee. ah génn àdduna moom nan laa ko mën a yëgee affaire mbiru yàlla yàlla ku mu neex yóbbu c'est naturel pour man bu dul woon moom keneen lay doon surtout yàlla nañu yàlla yeexe ban anecdote nga ñu mën a jox ci Gaston. ban anecdote nga ñu mën a jox ci moom. <laughs> je خبر خمر لنا خمر xarit dem na oui xam naa daañu fekkee mais yàlla na yéex waaw ah, waaw loolu la ñuy ñaan loolu la ñuy loolu la ñuy ñaan yàlla oui. voilà loolu rek lañ ci doon bi mu ñëwee ba léegi Portugal la nekkoon après 40 ans dooru ñëw tey gaañu gostan gi moo tax mu ni fu mën a ne wérul waaye naa ko indi loolu rek la ba ba salaam incha allah. ñu ngi koy jaal bu ok merci. un petit mot rek tey génn àdduna suñu papa Gaston Mbengue mu liggéey lu nekk ci wàllub làmb lu yan témoignage nga ñu ci mën a defal. moo sentiment de tristesse comme li ma koy waxee rek. Euh, am na loo xamante ne mënul neex ndax euh, référence bu génn àdduna la boo gisee tey cimetière nu mel nga xam ne rek euh, tiis sa naqar la mais àdduna la ñu xam ne rek ku nekk rek dañ ci jaar incha allah mais yàlla na yéex daal. jërëñoo miinante man Makan la la gën a miinanteel mais di wax ne suñu papa la comme nu mu nekkee papaay Makan ndax euh, première journée bu ma tëgg daf ma woo téléphone di ma conseiller te yàlla xam na ne xamuma sax ku ma doon woo daf ma woo kii moom mu yónnee ma message ne man la sa papa Gaston ma wuyu ko loolu ñàkk ki ñaanam la ak bëgg sport bëgg làmb li ma wax sànq rek laay waxaat dee la njëkk a bind ko dund allazi xalaxal mawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum axsanu amala waxu wal azizul afuur donc nañu rafetal lépp ci àdduna xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay dara jaru fi ñaawoo dara jaru fi salteel on est de la même famille réew mi ñun ñëpp a ko bokk nañ rafetal les relations rek moo am solo. génn àdduna Gaston nan nga ko yëgee. démb ci plateau TFM la ma fekk euh, ñu annoncé ñu ko foofu ci lañ jugee automatiquement maa maa ngi toog ak Franc ak ñi ñu jug automatiquement dem parce que kii la quoi surprise dañ ci am feebaroon na certes mais duñ ko xaar ne instant boobu noonu dina génn àdduna mais comme may wax rek. àdduna la di wax njaboot gépp nañu muñ rek ñaanal ko yàlla mu yërëm ko xare ko àjjana. ban jox sa frère Makan xamante ne fi mu toll nii bàyyi ji dafa jël leng yëpp jébbal ko ko ba amoon kàddu yoo koy dénk waaw na muñ d'abord na muñ bu baax a baax xam ne nag jullit lii dalay dafa bokk ci àdduna mais nag am na sas bu rëy am na sas bu rëy rëy rëy waaw te incha allah du ci wéet daal incha allah merci beaucoup. Youssou maa ngi lay jaale suñu papa Gaston Mbengue mi génn àdduna donte démb sax bëri nga waaye tey ñëw nga ci levée du corps bi yan kàddu témoignage nga ñu ci mën a defal waaw ginnaaw bañ sant na yàlla jul sent bi sant suñu ñaar waajur di jaale Sénégal di jaale àdduna ndax Père Gaston Père Gaston ñëpp la di jaale Makan suñu frère di yàlla na ko yàlla yërëm taxaru àjjana at mboolem jullit di ko ñaanal fii mu tëdd yàlla na ko gënal fii mu jugee at képp koo xam ne làqu nga rek yàlla na yàlla yërëm te jéggal la génn mm-hmm. ak Gaston Mbengue àdduna nan nga waaw mooy jugee stade di teg sama ngemb si la ma am ku ni Gaston moo mujj làqu ma ne ko Père Gaston taxaw boobu maa ngi teg sama ngemb après si laa amee résultat yi daal waaw. waaw di leen ko jaal yéen ñëpp di ko jaal ku nekk mën nga ko jaal képp ku nekk si làmbar jaal